Ndiaga Diaw responsable départemental de l'UJTL de général du PDS à Thiès Ouest membre du comité directeur du membre du secrétariat national du PDS. Euh, njiitum réew su ko matee day xool li nga xamante ni mooy soxlal askan wi yitte yi nga xamante ni ñoo gën a soxal askan wi mu nekk ci président Abdoulaye Wade bi mbënd mi sonalee sénégalais yi dafa jóg dem ci banlieue bi. xuus ci biir ndox mi dem seeti leen masawu leen ànd ak ñoom naqar bi ñu am yamu ci mu ne leen balaa déwén ñu bari ci yéen dinañu jóge fii ñu dëkk dem ci ay quartier yu bees yoo xamante ni moom moo jël initiative lotissé ko defar ay plan tabax ko tuddee ko plan jaxaay tabax de centaines de millier de logements tey soo demee plan jaxaay di nga gis ay xale yoo xamante ni mbënn moo dàqee seen bàyyi ci banlieue bi ñoom ñu juddu màgg ba dugg école ba def examen te mosuñu gis taataa ndox waxuma laak nag di gis inondation loolu vision la xam-xam la bëgg sëm réew la yërëm saw askan taxaw ci faj seeni jafe-jafe kooku mooy président Abdoulaye Wade mais ki fi nekk tey non seulement demul seeti leen en plus li mu dugal ci milliards ci xeex mbënd bi Sénégal nekkee état ak léegi benn gouvernement mosu ko dugal ci sept cent cinquante milliards te mooy li nga xamante ni moom moo fés alors mu wax ne réglé na définitivement le problème des inondations alors que tey li xew mooy wane ne ndekete seen sept cent cinquante milliards yooyu bu fekkente ni dugg na ci xeexum inondation feeñul ci li nga xamante ni moom mooy nawet bi parce que foo fi dem gis nga nit ñaa ngi tëmb ci ndox yi dëkk bi kenn mënul génn kenn mënul dem kenn mënul dikk parce que tout simplement euh, ñëpp la inondation yi sonal. plan plan plan plan plan Orsec déclenché nañ plan Orsec on n'a pas besoin de médecin après la mort li ñu soxla un état day prévoir. état day anticiper mais soxlawuñu état boo xamante ni da ngay bàyyi ba nit ki faatu nga daw yenn ko naan maa ngi koy yóbbu hôpital nous sommes à presque un mois de la fin de l'hivernage déclencher plan Orsec maanaam loolu wax yàpp askan wi sax weesul bàyyi ba desul lu dul benn weer nga naan da ngay déclencher plan da ngay déclencher plan Orsec. loolu mooy loolu loolu mooy loolu mooy ñàkk a xam dara loolu mooy ñàkk am. vision parce que soo amee vision am na loo xamante ni doo xaar ba mu ne këtt ne jonn ci yow surtout que Sénégal tàmm nañ am inondation donc yow waroon nga jàpp ne ah ay ay ay la yéwén taw yi di ñëw mën na bari ba sonal askan wi ñu teel a jël matuwaay mais bu fekkente ne yow sa xam-xam daanaka soriwul sa mën-mën it daanaka soriwul eh, nii rek la mën a demee. c'est le président de la république qui définit la politique de la nation. bi ñu bëggee topp Karim Wade topp nañ ko donte ne lañ ko doon toppee sax xam nañ ne dara tegu ci yoon mais mobiliser nañ tous les moyens possibles pour pour pour pour pour arrêter ko bi ñu topp bëggee topp Khalifa Sall mais lan moo tax bu falee bu ñu falee ministre mu def lu ko neex l'État a les moyens de d'auditer auditer xool li fi dugg fan lañ ko dugal donc loolu nag responsabilité président de la République la mais lim ñu tàmmal depuis bi mu faloo 2012 ak tey mooy képp ku ànd ak moom yow ci ne pas inquiété bu doo am benn jafe-jafe doo am benn tolof-tolof au contraire lu la neex ngay def te dara du la ci fekk. lu ma gis cest à dafa nekk li nga xamante ni moom moo nekk les faits ay faits laay wax général njaay bi nga xamante ni moom moo doon superviser répartition denrées alimentaires yi mais déggu leen ñu ne mi ngi laaj Mansour Faye ay facture Mansour jox ko. fan la mujj déggu leen fi benn directeur bu benn ministre bu IGE demoon demoon biroom di ko seet pour enquête mu dàq leen saaga leen fu mu mujj frère président Macky Sall déggu leen ñu koy tudd ci mbiri 3000 milliards fu mu mujj donc c'est juste pour wax la ne la Macky Sall moo ñu tàmmal depuis son accession au pouvoir que lu ñi ànd ak moom lu leen neex def dara du leen ci fekk ñeneen ñi mënuñu leen tolerel lu tool ñi virgule loolu bu ñu demee ba mu nekk ba mu am ci réew c'est parce que réew moomu ama amatul bonne gouvernance curage des caniveaux li ma wax ci président loolu laa wax ci maire curage des caniveaux moom dañ ko war a anticiper même deux mois avant l'hivernage war na fekk ñu cuire caniveau yëpp parce que yàlla buy taw du tàggoo donc taw bi mën na ñëw à n'importe quel moment ce qui fait que loolu dama ciy d'accord ak yow dañu bu dee curage caniveau yi dañu war a ko anticiper bon man nag personnellement vérifié wu ma ba xam ba xam ñoom maire de curage bi def nañ ko ou pas loolu aussi ñu ngi ci nekk di waxtaan ñun au niveau des jeunes du de de de l'UGTL pour xam exactement au-delà de la responsabilité de l'État ñi nga xamante ne su ñoom ñooy collectivités yi lan moo ci seen responsabilité. suñu paree dinañu tënk benn mémorandum boo xamante ni dañ leen koy jébbal ñoom ba ba noppi jébbal ko presse bi pour ñu xam ñun lan moo ci suñu position. dañ mhm. ci waxtaan ak benn autorité bërki démb ma ne ko il faut que ñu am un très bon plan de d'assainissement. un nouveau plan j'allais dire un nouveau plan d'assainissement pour la ville de Thiès parce que lii mënul mënut a wéy mënul continuer chaque année. même place yi nga xamante ni ñoom ñoo et puis eh, pour cette année si am na yeneen yeneen yu ci yokk parce que Mbour daawul inonde comme ni muy inondé ren te léegi gis nga inondation cité Ousmane Ngom bi nga xamante ni fa dëkk am na ci taw yoo xamante ni ci biir néegu nit ñi la ndox yi doon dugg donc loolu nag jot na sëkk pour ñu am un nouveau plan d'assainissement pour Thiès que bu tawee ak lu taw bi bari bari bari une heure de temps après wala trente minutes après dootoo gisati ndox. xam nga affaire inondation aussi du du compétence su maire yi affaire inondation inondation maire yi mënu ko régler peut-être li nga wax sànq maire li ñu mën li ñu li seen compétence mooy curage des donc loolu beneen bi des soo dee xool bu njëkk caniveau yi yi ñu daan utiliser ndox mi di ci jaar léegi pratiquement bareetul wala amatul sax j'allais dire moo man la il faut ñu am plan d'assainissement bu bees. boo xamante ni dañ koy tàmbalee ci ñeenti entrée wu Thiès yëpp wala juróomi entrée cees yi plus biir centre ville bi nan la ñuy def ba ndox mi bu ñëwee am yoonu boppam bu muy jaar ba génn sans pour autant mu créer fi benn dégât et je pense que loolu c'est possible parce que ay boroomi xel a fi nekk bu ñu dajaloowee toog waxtaan kenn ku nekk la nekk sa bopp nga génne ko jàpp naa ni loolu mën na mën na mën ko xaar fi la loolu ci autorité yi la dépendre parce que ñun aussi il nga xam ne nekkuñu ci euh, ay post de responsabilité nekkuñu ci état nekkuñu ci mairie ay citoyen lañ ñu réew mi soxal dëkk bi soxal ñu donc ñu war ci mën a jàpp pour que mu avancé donc ci cadre boobu la ñuy waxee donc ci seetlu bi nga xamante ni ñëpp seetlu nañ ko dañoo njortu ni dafa bëgg def troisième loolu acte yi muy wane na ko xam nga du ma ne waaw du ma ne déet du tontu président Macky Sall vis-à-vis de son peuple ndax da ngay def troisième mandat mu ne du ma ne waaw du ma ne déet du loolu moo war a doon tontoom imaam lii lii moo ñu tënk ñun Sénégalais yépp lii mooy constitution moo ma tënk man tënk la tënk képp kuy sénégalais y compris le président Macky Sall parce que nul n'est au-dessus de la loi lii mooy ndeyu charte réew mi Sénégal constitution bi soo ci duggee dem ci biir aara rek parce que xam nga wax moom day leer article 27 bu constitution bi moo ne nii article 27 bu constitution bi li mu wax ci deuxième alinéa mu ne ni mu ngi nii la durée du mandat du président de la république est de mu ne nul mi ngi nii de alinéa 2 nul ne plus de deux mandats consécutifs man jànguma droit def du mais moom dafa mel ni deux mandats de cinq ans la wax. Euh, ça ça nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ne concerne pas la durée du mandat mais concerne le mandat lui-même. mais moom en tant que président dafa ne deux mandats de cinq ans. déedéet la durée du mandat. c'est la durée du mandat qui de cinq ans. la durée du mandat est de cinq ans. mais moom son premier mandat c'était léegi xaar xaar ma ñëw xaar ma ñëw xam nga le premier mandat c'était sept c'était sept ans donte ne waxoon na dina ko wàññi def ko cinq ans mais mujj ko def mais deuxième mandat bi nga xamante ni moom mooy cinq ans bi moom président Macky Sall dafa wax ne daf koy daf ko boole ci mandat moom moo ko waxal boppam moo ne mandat bii ma njëkk def ci la bokk. bi ci topp war a jeex 2024 bu jeexee pare naa ci du sama wax waxu président Macky Sall beneen bi ci des constitution bi waxul deux mandats de cinq ans dane ñaari mandat consécutif ñaari mandat moo xam bu fukki at bu ñaar fukki at bu téeméeri at mais mënoo ci def ñaar léegi dama leen di laaj ndax Macky Sall def na benn wala defagul benn ndax bi mu nekk nii ñaareelu mandat bu dee bu dee bu dee tuddeewu leen ko mandat ngeen wax ma nuñ ko tuddee dañu nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs plus de deux mandats yu tegloo 2012 ba 2019 du mandat donte ne juróomi at la 2000 2019 ba 2024 mandat la mu ne la mënoo def ñaar ña mënoo def lu ëpp ñaar yu tegloo c'est fini pour le président Macky Sall. mais si une fois mu forcé ko. waaw léegi nag su boobaa. waaw kay naka ngeen fas yéene def euh, yéen seen nañ ci sa leader ba nga ko forcé li ko ci fekk. Macky Sall moo ko ci mën c'est-à-dire bul boole ñaar yi boo génnee constitution bu 2007 bi amul lii nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs génne ko nga xool bu Abdoulaye wat mënoo ko jël tëkkale ko ak bu Macky Sall. différence bi mooy kee juridiquement yoon mayoon na ko mu représenté wu waat donte ne waxoon na ne du nekkaat candidat mais loolu waxam la. waxam gënut a kawe constitution mais bii kii dafa tënku ñaari mandat yu tegloo kenn mënul def lu ko ëpp loolu koy féetee na boor. su boobaa bu forcing amee forcing. waaw léegi nag bu forcing amee su boobaa kenn ku nekk jël say responsabilité comme que yeggaguñ ci pour le moment ci question yi ñu nekk ci yooyu la ñuy traité mais bis bu ñu demee ba yegg ca kenn ku nekk di nga jël say responsabilité ba mat sëkk. ñun nag ñàkkuñu fayda ñàkk fayda gu toll ni président Macky Sall bëgg jël suñu constitution bi di ko tripatouiller di ñu fowee ba pare ñun ñu toog croiser les bras dama ni mooy constitution mooy suñu ndeyu chart réew boo duggee ci constitution bi article six constitution bi moo lay moo lay limal les institutions de la République du Sénégal c'est le président de la République c'est l'Assemblée nationale en deuxième position c'est le gouvernement c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales c'est le Conseil économique social social environnemental le Conseil constitutionnel la Cour suprême la Cour des comptes les cours et tribunaux la deuxième institution au Sénégal c'est l'Assemblée nationale on ne peut pas parler d'opposition di wax opposition bi jël deuxième élection présidentielle mais par contre l'opposition parlementaire Abdoulaye Wade na pa déggu leen ko benn yoon mu wax ne moom moo ngi revendiquer le poste. déggu leen le moo ko bëgg a jox dafa dafa dama lay wax damaa bëgg rek ñu xam ne. dañuy wax pour sénégalais yi xam ne lii bu fekkee warul nekk l'objet d'un débat warta nekk débat kan moo war a nekk chef de l'opposition warul nekk débat dafa dafa dafa tranché boppam. di ci def débat mooy di débattre ndax Macky Sall mooy président de la République du Sénégal ba ñu xamee ne Macky Sall mooy président de la République du Sénégal ci lañu xam ne opposition sénégalaise beneen bi ci des il faut ñu ñu ñu ñu taxaw un ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo wax ne Abdoulaye Wade warul nekk chef de l'opposition ñoom ñoo tànn Idriss Seck j'ai de très bons rapports avec Idriss ak ses responsables au niveau de Thiès ñan ñoo ne Idrissa moo war a nekk chef de l'opposition Malick Gakou bi matalul parrainage Pape Diop matalul parrainage euh, euh, Madické Niang ñëpp xam nañ parrainage am ni mu demee ñooñu ñoom ñooy ñooñu ñooy les leaders ñoo ñoo représenté Sénégal ku chef de partie bu matalul parrainage moom mooy wax ne diw mii moo war ñoom ñooy décider au nom du peuple beneen bi ci des ñoom ñiy wax Abdoulaye Wade moo leen fal. est non dama ni mën dañ ne ñoom ñooy les leaders. les leaders leader day matal day matal day matal parrainage leader bu matalul 65000 parrain man mënu ma la tuddee leader ba pare leader boo xam ne Ablaye moo def député nga ñëw taxaw jël position contre lui ci dem élection c'est pourquoi je profiter de cette occasion pour lancer un appel solennel au président Abdoulaye Wade su ñuy defati coalition nañu xool ñi ñuy àndal. parce que ànd ak ay nit fal leen ba pare bu ñu retourner position bu ñu bëgg jël jël ko surtout di jël ay position à la à l'encontre d'Abdoulaye Wade man je ne suis pas d'accord là-dessus ànduma ci surtout ko dans notre parti am na ay responsable yu dynamique engagé am base politique di góor góorgóorlu nañ jël ñooñu di leen investir. ma ko waxuma ko constitution moo ko wax ni Macky Sall nekkee institution assemblée nationale institution la moo si donc loolu ko wax. kon daal Ablaye donte ne laaju ko demandé wu ko parce que ñun li ñuy teel mooy nekk premier ñun premier moo ñuy teel. ci Ablaye mooy chef de l'opposition mooy chef de l'opposition dama la wax dama ne la. kon yow dégg ñi xam nga yow nag comme que Mali nga dëkk xam nga yow Mali nga dëkk moo tax xëy na déggoo déggoo wala fu baax dama ne la d'office. Ablaye Wade chef de l'opposition ku ko bëgg ak ku ko bañ. mais dama ni moom ci boppam musuma dégg wala ma dégg président Karim Wade wala kenn ci direction parti bi ñu wax ne poste bi yitteel nañu. préparé dans loolu day dépendre ci direction parti bi en tout cas dans l'étendue du territoire national. fu ne danañ fa danañ fa danañ fa am yi am yi am yi liste bu soobee am. par le 31 mars lañ waxoon. loolu mënuñu ko mënuñu ko puus mënuñu puus élection ñetti yoon. ak ci réew mi toll ko ñaari yoon. Ah. mënuñu ko puus ñetti yoon. ak réew yi yi yi ñu seq yëpp a ngi organiser ay manifestation ñi nga xamante ni xam nañ ne réew mi am na corona te terewul ñu ngi organiser seeni i activité di dem ak ñëw fu ne ñu dugg fa donc pourquoi mun mënuñu organiser élection coalition la coalition bi le niveau national Abdoulaye Wade moo koy définir maintenant mën na jox mandat au niveau des des communes ku ci ne nga xool coalition bi nga xamante ni jàpp nga ni mën nga ànd ak moom yooyu yëpp ay décision am na mën na décider aussi na PDS demal boppam lu mu ci décidé rek pare nañ pour ànd ak moom ci loolu mi ngi ci jàmm mi ngi ci jàmm mais ñi euh, jëf moo gën wax jëf moo gën wax bi pandémie bi amee première sorte li mu njëkk a mooy moom moo njëkk a état Sénégal pour ñu jëli doomu Chine yi nekk Sénégal ba pare wax leen nan la def ba indi leen te duñu fi dugal feebar bi duñu wàll kenn. da ngay testé sa bopp 10 minutes après mu indi le résultat ba pare demander à ses ses responsables départementaux et nationaux que nañu arrêté toute sorte de manifestation ak des les réunions même les réunions la permanence mu ne nañu tëj permanence yëpp. instruire ñu pour ñu dem à la base jàppale suñuy population ci ay masque jàppale leen ci nan la ñu leen jéem a dimbali ba ñu respecter les mesures barrières fii fii fii ñu toll nii Sénégal li mu soxla mooy leader bu leen bu leen taxawu jàppale leen mais pas wax ju bëri fi ñu toll nii président Abdoulaye Wade mënta amee wax ji mais nu ñu génnee sénégalais ci sénégalais yi ci li nga xamante ni moom mooy. moom eh, gis nga ñu ngi ñu ngi ci li ñu li ñu li ñu ñu nekkee présentement. les réunions na peuvent pas se tenir mais gis nga ni direction parti bi bërki démb la fi jógee am suñu ay responsables yu ñàkkoon seeni ay waajur ñu def ay délégation ñëw dem ci kër yëpp massawu leen jaale leen dama jàpp ne loolu aussi démarche bu baax la bu am solo la parce que ay nit soo leen bàyyee ci à la base ñu lay sonal donc ñoom aussi bu ñu amee naxaat da nga war a ñëw taxawu leen jàpp jàppale leen te vraiment loolu la loolu la parti bi démarche boobu laa gis parti bi. wax toujours que bokkuma ci. responsable PDS yi wax di lijjanti retouru Karim man lijjantiwu ma retouru Karim retouru Karim lijjantiwu ko xam nga man lan moo ma ñor soxal mooy liggéey fii loo xamante ni bu Karim Wade ni cëpp xelam mën a dal mu xam ne Thiès Ndiaga Diaw mi ñu fa bàyyi la ko waroon def na ko parce que Karim li ko war mi koy def donte ne mi ngi à l'étranger mi ngi gérer parti bi comme ni mu waree la muy liggéey di ko gañe di ko ñàkk ak kës néew mi ngi jël lu ci ëpp di ko di ñu ko yónnee pour fonctionnement wu parti lu xew mu dugal ci loxoom donc moom li mu mën mi ngi koy def man aussi li ma war man mooy fexe ba liggéey fi loo xamante ni bu ñëwee xelam dara ci mais Kanta kañ la war a ñëw waaw loolu nga jàpp de toute façon élection le 31 mars la. ñoo la wax de. mais le 31 le 31 mars. soriwul buñ ci yeggee dinañu natt xam ku am doole ak ku amul doole maa leen di remercier di leen sant di leen gërëm à travers euh, seen directeur général Abacar Samb ma ko Mbaye Samb euh, di la remercier ñi ma di remercier également Serigne sa caméraman bu bu bu graw bi ah. euh, di nuyu waa internet ak kii di ñaan yàlla yàlla delloo si def jàmm ci réew mi yàlla jëlee fi mbas mi